maa ñëwaat fas yéene waxtaan ak yéen ci diine bi ñu bokk live bi tey li ko tax a jóg mooy semaine bi passé soirée bi bi sëñ Moustapha Sy doon def soirée laa ko mën a tuddee parce que bon soirée la daal ndax jaxase ay góor ak jigéen moom teg sa orchestre ñuy way loolu mënta doon lenn lu dul soirée donc tey live bi moko moo ko ak discours bi bi capitaine C. doomam bi discours bi mu tenir fofu. Benen bi mooy euh, dañu créer benn secte bu bees bu tudd femme dévouée donc live bi incha allah ci kàttanu yàlla ça va tourner autour de ça maa ngi leen di nuyuwaat ku ci nekk ci turam ak santam di ñaan ngeen partager vidéo bi. ndax dompat ci sot la bokk bon capitaine jaruma koy présenté ngeen fàttali ko il y a quelques mois ci ginnaaw alerté woon nañu ci moom yàgg dañ sax alerté ci moom mooy doomu Moustapha Sy bi nga xamante ne moom la pàppam di waajal pour bés bu fi jugee mu toog doon ko jël leen ngay jox ko bu ngeen fàttalikoo moom capitaine moo fi waxoon iblis jàmbaar ji moo fi doon tagg iblis moo fi ne woon iblis juumul nee na moom d'accordul ne iblis dafa juum moo fi waxoon tamit ne suñu maam aadama dafa ñàkk fayda ba coow li yëpp victime la si wax ju jooju wala sax wax yu yooyu moom capitaine moo ko fi waxoon moo fi waxoon aussi ne ñaan reewande la ñaan bi nga xamne jaamu yàlla la mom capitaine mo waxoon rewande la mo fi waxoon yonent bi du model yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom capitaine mo fi ne du model mo fi ne woon julli soxlawul fatiha ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen mboosoor yi mu fi wax yeb suma ko doon lim duñ fi jóge mais kàddu yo yeb capitaine tambu di wax ci bayam la ko déggee parce que kéwal du tëb mukk doom jëbët bët ku ne li nga nàmp loolu ngay gàll capitaine lii muy wax da ko doonu ki bàyyi Moustapha Sy doonu ko it ci maamam Almaktum dama leen di indil benn vidéo boo xam ne papam la ndax papam moo fi waxoon yàlla su leen su su naree alag waa kër Maodo day torox loolu papam moo ko fi waxoon moo indi leen vidéo papam rek pour may jox leen benn lancé bu ndaw ngeen xam ki ñu amal affaire ki ñuy waaj a live mooy ak ku mu doon est-ce que son bi baax ni dafa mel son bi leerul noonu dafa mais j'espère que dégg ngeen lu mu wax donc vidéo bi yàgg na Moustapha Sy bàyyi capitaine moo fi waxoon lii moo fi waxoon yàlla buy alag waa kër Maodo di yàqu lii moo ko fi waxoon Sénégal donc tey bu àdduna doxee ba doomam wax-wax yu rëy yi nii ñu mujjee dégg fan yi bon damay jàpp ne c'est tout à fait normal parce que baayam maamam yàgg nañ ko fi wax dara fekku leen léegi dañuy jublu ci discours capitaine bi avant tout dama kay tek inshallah ñu deglo ndor ko ba mu jeex tak ma dor ci ñëwaat sàngam sa bés la weesu na loolu bés bii suñu bës la ndax suñu bësu delloo njukkal la ndax ci bësu tey jii ci jamono ju jaxasoo ji yàlla baaxee ñu ku dal ni moom yàlla baaxee ñu ku am yërmande ni moom yàlla baaxee ñu ku am xam-xam ni moom yàlla baaxee ñu ku yéene nit ni moom kon nag bés bi suñu bés la nañ ci sant yàlla tey nag damay amande ndax boobu ba léegi maa ngi dégg ñuy sàcc naan suñu góor gi waaw seetlu naa ko waa ah, dangeen di ree kuma farete gallanci taxe tax a ngi le ree waaye lu serie lay wax bu may wax sama góor gi da ngay yaakaar ne ay kaf la tay nak mo won len lan mo tax ma saña wax sama gi bu di wax ni xamo len ko xamo len ko sama góor gi li ngeen fi way yeb yeungaluko sama góor gi ay baat yu neex yitteelu ko sama góor gi li noppam di dégg mooy cofeel bi seen xol yi di wéy sama góor gi li muy dégg mooy seen pas-pas yi li muy rëkk yëgul tama yi sama góor gi li muy dégg mooy xam-xam gim leen di sotti muy aw seen xol ak seen cofeel yëgul woykat yi sama góor gi sama góor gi li muy yëg mooy sérieux beeg yar gi mu def ci yéen mu dégg ko muy jouer basse instrument yi yëngulu ko ma góor gi mooy ki nga xam ni fu mu àddoo asamaan si yëpp yëngu bés bii daaw moo ñu fekk grand théâtre bés bii daaw fa ma toog ca saal ba xaw ma xaw ma lu lu mbir yi di saf ndax ñaara rey benn présence calmam dara dara ci àdduna mënu ko yëngal ñaareel bi yóbbante bu ma jot ne bu ma demee di wax nag ko wax mooy li ngeen dégg ma wax ko ca bés ba tey nag ma jotaat beneen yóbbante waaye bii nag yéen nag mooma ko moom bi ci njëkk ñu njëkkee bosam si

amul lu yàlla bind ak àdduna bu mu mënti doon te dencu la ci xolam ndax yaa ñu jàngal fii ci Tiwaawan ne yàlla lu mu sàkk rek am na unanimité ci moom ba mu des nit kon nag si mbindeef ñëpp sopp nañu la si yonent bi nee na yonent bi nee na cofeel gu yàlla amoon ci moom am na cofeel gu ñu toll ci yow bi ci des nag lenn rek la ak loolu yëpp ak ni muy toll baal leen ko ndax sama góor gi la loolu yëpp baal nañ leen ko si def nga ci ñun yar goo xam ne def nga ci ñun formation boo xam ne yàlla xam na ni si jox ñu ndigal rek suba ñu def Sénégal dóom billaahi wal kitaabi bu fekkee lii may wax du dëgg billaahi yàlla bu ma fanaan am na ñoo xam ne nag dañoo tuuti kenn du leen tudd ci kanamu ku mel nii am na ñoo xam ni seen doyee deg seen caay-caay du tay démb la am na ñoo xam ni si def leen wóor ne àdduna du dox ba ñu mel ni yow kon nag bu ñu xëyee seen xol di tàng da nga leen koy nangul ndax nag si yaa toll noonu waaye ñun nag ñun si yàlla xam na ni ci sa kanam duñu dara ci sa kanam si duñu kenn xamuñu dara waaye nag góor gi def nga si ñun loo billahi ku taxawati suñu kanam do kenn do dara sa njaboot gi kenn raw leen fi te ci yaa ko liggéey kon nga am na lo xam jarta kas jarta mer ñong kay koy fi sax fi mo dakh arena deug la ndax ci fi mo la nuyu sii moo la néew ndax bu fekkee ay place rek la si bu ñu demoon asamaan si feesal ko dell kon nag sant yàlla sant yàlla ci bam ñu boole ku mel ni yow sant yàlla bam ñu mayee chance ñu liggéey ci sa keppaar sant yàlla ci bam ñu permettre ñu am xàmmewu xam ni ci sa ëtt ñax rek a ñu war ñoo ngi sant yàlla ñoo ngi sant yàlla xamoo leen sama góor gi billaay xamoo leen sama góor gi moom mi ñu jàngal li nekk ci asmaan ak ci suuf jàngal ñu ba jàngal ñu nan la jardin wu yàlla di mel jangal ñu ba wàññu autoroute bi jëm ci buntu bureau yalla xamole sama goor gi si mës ko wax tay la kay waxaat yalla bu la fayé ma xex ak mom ndax yalla ak ma xam li ngand ngand doyuma ci yow li nga liggéey ci ñun si yow yalla du la fay man ma lay fay bu mu ko narul yàlla naa yàqu àdduna àllaaxira ak leneen lu ci mën a ñëw si buñ la naree ye buñ la naree ñàkk yàlla nañu sànku waaye si na ku la nara laal billaahi ku la nara laal dana xam ne lu safara tàng-tàng yàlla am na yu ko gën a tàng ku ko ñeme nag ñeme nañ ko ku ko sóobu nag ñeme nañ ko ku yaakaar ni ay wax la ñeme nañ ko lii ñu wax nag ñu nangul ñu ko moo am ñanguluñ ko moo am ku mu neex nag nga nangu ku mu neexul nag nga bay wasalaamaaleykum wa rahmatullah ok mbokk ñoo ko déggandoor ñoo déggandoor kàddu yi doomu Moustapha si sëtu Almaktum sëtu Serigne Babacar Sy sëtu Alaaji Malick kàddu yi kàddu yi mu wax jëme ko ci yàlla suñu borom subhanahu wa muy ay kàddu yu day waar ay kàddu yu yu yéeme yoo xamante ne amul kenn kuy jullit dégg kàddu yi te doo tiit doo am lu la naqari doo am lu la metti kàddu yi senegal lañ ko waxee yàggul dara il y a même pas une semaine capitaine capitaine nee day xeex ak yàlla balaa muy ñëw sax ci tëkk bu mu tëkk yàlla ne dafay xeex ak moom discours bi laa bëgg a décortiquer benn par benn commencement ba fin parce que comme ni ma leen ko waxee booy bi jàngul amul xam-xam sataniste yi initier nañ ko fabriquer ko façonné ko ñëw indi ko ci dëkk bi ñuy wax Sénégal nga xamante ne Iblis dafa sànni ay engrais yoo xam ne suuf la suuf la soo xamante ne loo fa jii day meññi bu seytaan ñëwoon léegi léegi di woote day am ñu ñëw di ko topp parce que Sénégal moo mel noonu lu waaye woote woo ñu wuyu ko donc capitaine danger la ci société bi danger la danger la ci jullit yi fa nekk moo tax duñ ko bàyyi foog ñu jugal ko. si si discours bi commencement bi dafa wax mu ne nuyoo du aada nuyoo diine la capitaine demal nga jàngi capitaine demal nga jàngi nuyoo du aada nuyoo diine la yonent bi sallallahu alayhi wa nee na yonent bi nee na afshu salaama baynakum joxe leen salaam ci seen biir xadis muslim yàlla suñu borom nañu waa aljana salaam mooy seen nuyoo yow nga ñëw tiim mbooloo bi di leen xeeblu naan leen yëguma leen dama nuyoo nii rek waaye yëguma leen ndax nuyoo aadala la subhanallah ñu lay tàccu nag comme ay mouton ndeysaan yal na yàlla gindi ma te gindi leen beneen bi nga ne dañ la beneen bi nga ne dañ la yóbbante ñu la yóbbante nee nañu nee nañu nee nañu sa maam xaw ma sa papa Moustapha si yëngal na asamaan <laughs> capitaine asamaan lu koy yëngal yombul sa papa amul capacité yëngal asamaan asamaan si lu ñu suñu borom nettali benn yoon la musa a yëngatu mooy bi yéeféer yi waxee ni yàlla am na doom boobu la asamaan mës a yëngatu sa papa mii nga xamante ne day nuyu ay jigéen tuuti na lool si yëngal asamaan soirée bi mu organisé keroog man bi ma ko gisee mu jug jël loxoom di ko jox jigéen ñi di nuyu jigéen jigéen yoo xam ne muuruwuñu sax ñu ngi teg seen ay cheveux yu baax pose seen ay ongles yu gudd taxaw nii Moustapha Sy jug di leen nuyu nga ne ma yow kooku moom mooy yëngal asamaan nga ñëwaat nga ne ki la yóbbante nee na pour nga wax sa papa que malaaka yi dañ ko sopp mais loolu ay fen la en plus yow dañ ñu war wax kan moo la yóbbante parce que bu ngeen bàyyi xel discours am bi dafay insister di wax ni dañ ma yóbbante dañ ma yóbbante kan moo la yóbbante kan kan moo la yónni pour nga wax wax yu bon yi jëme ko ci yàlla yàlla suñu borom man lima ma moy ñi la ngemb ñoo la yónni sataniste yi la ngemb ñoo pour nga joxe message bu subliminal bobu malaaka yi duñ sopp ku bon waxal ñi la yobante xam nga ñooñu nee nañ pour nga wax sa papa ko malaaka yi sopp nañ leen bo démé nga ne leen ma xadi neena malaaka yi duñ sopp ku bon yalla suñu borom neena malaaka yi dañoo sel ibadum mukarramun li la yalla wax ay mbindeef yu sell lañ ñoom malaaka yi kon ñooñu duñu sopp ku bon ku mel ni Moustapha Sy ndax ma Moustapha Sy ku bon laa ko jàppee parce que bon weesuwul nga créé sa secte tuddee ko Moustafchidine xaw ma Moustarchidine wala Moustarchidaat boole góor ak jigéen ñuy jaxasoo di woy teg sa orchestre nga leen di dégg nii ñuy way di neexal seeni baat nga di leen sànq di leen réeral doo leen wax yàlla doo leen wax yonent bi doo juum mukk ba firil leen alxuraan di leen égaré kooku mënta doon lu dul nit ku bon moom Moustapha beneen bi mooy malaaka yi du ñu bëgg ku nekkul si njubu yàlla te sa baay nekkul si njubu yàlla parce que bu nekkoon si njubu yàlla du toog doomam bi mu jur ci geñoom taxaw di xotti war ma yàlla te du ko ne parce que capitaine bi bi naan dafay xeex ak yàlla mu Moustapha Sy mu ngi toog kon Moustapha Sy bu Moustapha Sy bu juboon wala mu nekk si njubu yàlla du jàkkaarloog yow doomam nga naan ko dangay xeex ak yàlla mu ne tekk di la tàccu di yëngal bopp naan waaw la xawla wala quwwata illa billah beneen bi capitaine mu wax mu ne yonent bi mu fenal yonent bi nag fen bu rëy capitaine nee na yonent bi moo ni ko yàlla sopp na Moustapha Sy comme ni mu ko soppee woon moom yonent bi waaw fan la la yonent bi waxee loolu capitaine fan la la yonent bi waxee loolu ani preuve que yonent bi moom moo la wax loolu mais Sénégal neex na ngay taxaw wax lula neex waxal yalla lula neex waxal yonent bi dula waxal yonent bi lula neex dara dula ci fek so pare paree nga dem di nelaw senegal dal mom mo nek rew mo xamantene nenañ ay julit lañu julit yoyu da ngay heurté sen foi di saga sen yalla di saga yonent bi yalla yoni ci ñom di dal alcorane te dara dula ci fek man tit na nak ci rew mi. capitaine yonent bi nee na képp ku ko waxal lu mu waxul préparer sa chaise biir safara te yow fenal nga yonent bi waxal nga yonent bi loo xamante ne waxu ko fan la la yonent bi waxee ni yàlla dafa sopp Moustapha Sy comme moom ni ko soppee la ko yonent bi waxee yéen daal diine ji da ngeen ciy fent lu leen saf lu leen neex sans preuve ngay jéem a tëkkale sa papa ak yonent bi yonent bi moo gën sa baay. gën sa yu baay maanaam almaktum gën sa baayu yu baay sëñ Babacar gënaat sa maam Alaaji Maalik yonent bi moo leen gën ñoom ñëpp yonent bi du moroom yàlla moo ni ko wa innaka la ala xuluqin azim yonent bi mooy gën gi mbindeef nga taxaw di ko déddaleeg nga taxaw di ko déndaleeg sa baay bii nga xam ne wëyu la bandi la vagabond la moom Moustapha Sy beneen bi nga ñëwaat nga ni <laughs> nga ne dangay xaar Moustapha Sy ne pirip pour nga def Sénégal doom eh waay Samba dangay xaar sa papa jox la ndigal pour nga def Sénégal dóom capitaine sa papa moom si boppam tuuti na si def Sénégal dóom tuuti na si moom moom si boppam dafa tuuti lool si def Sénégal dóom parce que boobu ba léegi mi ngi politique moom Moustapha si maire sax munu ko doon mënut a sax doon maire élection yi rek Diop si ni mu ko dumawee biir Tivaouane ñëpp ñëpp ñëpp teg nañ ci seen bët. mo fi waxon buñ tëjee buñ tëjee Khalifa Sall ñu tëjaale ko pourtant buñ ko tëjee nemm la def muut la def ne tek tekkaaral ba tey ci discours capitaine nga ñëwaat nga ni sa papa mustapha Sy xamal na len kumpaay asamaan ak suuf la ilaha illallah boy bi mo mën fen capitaine ma dama xamul ndax yow fa am ay jinne yu lay dee ngay wax wala dama bëgg xam yow fan nga jangé diiné wala est-ce que yow tu es ce que tout va bien dans parce que parce que yow wax yi ngay wax wax yu wayde yi ngay wax nit ñi la topp ay magum jëmm ay pa ak ay mère dégg la ngay wax waxu dof yii wax yoo xam ne teguwul fenn amul bopp amul geen ñu lay tàccu ci wax ji am ci sax ñoo xamante ne dañuy déglu capitaine bay jooy non man dama choqué si public bi da fay gis gis naa fa benn maire boo xam ne ak benn xale capitaine day wax ñuy jooy bay lox capitaine mi ngi saaga yàlla de ñoom ñuy jooy capitaine mi ngi tuutal yàlla ñu kontaan noonu bay jooy loolu ba dul yëfu seytaane lu mu doon nga ne sa papa xamal na la xamal na leen yéen yéen waa sect bi seen papa xaw ma seen sëriñ mu Moustapha Sy xamal na leen kumpaay asamaan ak suuf loolu du dëgg loolu du dëgg kumpaay asamaan ak suuf kenn xam ko ku dul yàlla yàlla suñu borom moo ni قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله amul kenn Amul peeg xam-xamu asamaan ak suuf kudul dul yàlla suñu Asaman ak suuf ak li ëmb amul kenn ku am xam-xam bi amul kenn ku xam li fa ne ku dul yàlla ñun ñii ñun doomu aadama yi liñ ci xam akas néew lu ñu yàlla xamal la mënuñ cee xam leneen léegi ma ñëw ci wax ji nga wax ne nga ne yàlla du fay sa papa waaye yow yaay fay sa papa bu ko deful nga xeex ak moom xaw ma damay xeex ak yàlla waa capitaine nee na day xeex ak yàlla dafa mel ni sax dama war a indiwaat vidéo bi foofu ñu dégluwaat ko bala may dajji wax jooju mu wax xam indiwaat fu mu nee day xeex ak yàlla ngeen baal mu tuuti rek ah da ngeen di ñëwee naa la wax ni la si dañoo tuuti ay chance am na xamoo leen sama góor gi fii la koy waxee déglu leen lu mu wax fii si mës naa wax tey laa koy waxaat yàlla bu la fayee ma xeex moom ndax yàlla ak maa xam li muy ngande ngande doyu ma ci yow li nga liggéey ci ñun si yow yàlla du la fay man maa lay fay bu ma ko narul yàlla naa yàqu àdduna àllaaxir ak leneen lu ci mën a ñëw si buñ la naree ye buñ la naree ñàkk yàlla nañu sànku waaye si na ku la nara laal billahi ku la nara laal dana autoroute bi jëm ci buntu bureau yàlla yàqu àdduna àlla wax laa koy waxaat yàlla bu la fayee ma xeex moom ndax yàlla nee na mës na ko wax tey la koy waxaat donc c'est pas la première fois mu wax ni day xeex ak yàlla ok waxaat yàlla bu la fayee ma xeex moom na yalla ak xam limuy ngand ngand ngande doyuma ci yow li nga liggéey ci ñun si yow yalla du la fay man ma lay fay bu mu ko narul nga yàqu aduna alakhir ak leneen lu ci mëna ñëw yow mom yàqu nga aduna ak alakhir ba pare li nga nekk ni mom boko bo ci tubul yàqu nga aduna ak alakhir capitaine nga ne ngay xex ak yalla d'accord jël ba nga ñëw tok ma wax la kan moy yalla capitaine capitaine ay bi magasi mag ci alquran nga xamni mën na ne sax ñepp ko mokal allah la ilaha illa hu amul benn buur bu ñuy jaam ci dëgg ku dul yàlla yow capitaine nga ni ko ngay al hayyul qayyum moy ko xamni day dund dund bu mat sëkk dund bo xamni amul fin ko xamni ñak dund jitu wul ci mom yow capitaine nga ni ko ngay capitaine degna 27 ans am donc peut-être 94 nga juddu capitaine 93 92 91 tu étais où fan nga nekkoon tu n'existais pas yalla moo la sàkk yalla moo la amal ci tokantalu maniw mom yalla ci tokantalu maniw la la jële def la lumbu deret jële la ci lumbu deret bobu defal la ay suux defal la jëm defal la tank loxo nop bakan bat beut gémmiñ juddu jot momi yalla mu yombalal la yoon bi summa sabila yassara yalla moko wax juddu jot capitaine yalla yombalal la yoon bi nga juddu tay nga taxaw nga ne yow da ngay xex ak yalla capitaine xamoko yalla motax deglul bu baax moko la kan al hayyul qayyum al qayyum ki nga xamni lepp lu taxaw ci kaw nu gi mom yalla moko taxawal manam lepp lu am yàlla moo ko amal lépp lu existé yàlla moo tax mu existé ak lu mu mënti doon lépp loo fi gis rek yàlla moo ko amal ah capitaine nga ne yow kooku ngay xeexal kooku nga xam ne yaa rabbi moom mooy laa taxuzu sinnatun wala nawm du sax gëmmentu bay nelaw yaa rabbi du gëmmentu bay nelaw yow capitaine nga ne kooku ngay xeexal yow dangay nelaw bay yendoor dangay nelaw bay yuut yow capitaine ki nga xamante ne booy nelaw mooy rocc sa ruu téye ko bu yeewu jotooy mu delloowaat la sa ruu nga yeewu yow capitaine nga ne kooku ngay xeexal laa xaw xawla wala quwwata illa billah gisoo booy nelaw capitaine ni ngay tàggoo tàggatoo euh, ni ngay ni ngay tàggoowee ak sa sago jékki saa rek ne këlëb tëdd nelaw moo tax ñu naan nelaw rakku dee la parce que nit ki buy nelaw yàlla dafay rocci ruwam téye ko su ko neexee mu delloo ko ko bu ko neexee du ko ko delloo parfois parfois nga rek gis nit ki dee na parce que si ay nelaw ci ay nelaw la ko dee dikkal yàlla suñu borom moo ko delloowul ruu bi ba muy bi muy yeewu moo tax booy tëdd am na ñaan boo war a ñaan boo yeewoo am na tamit ñaan boo war a ñaan parce que nit ki buy nelaw yàlla bi ko sàkk dafay rocc ci ruuwam capitaine yàlla yore sa ruu di ko manipuler matin midi soir nga ne yow yàlla boobu ngay xeexal imma da nga da nga réer wala da nga dof wala tu étais possédé bi ngay wax loolu tu étais en pleine possession démoniaque man lima japp moy yow bi ngay wax wax gi tu étais en possession parce que capitaine seetlu len bi mi wax ni bat bi changé posture bi mi am expression corporelle bi capitaine yoré nga xamné ki kii mo nek di wax ci laminam parce que ñi ils ont vendu leur âme au diable pour succès et gloire ñi sëriñ si ni la plupart ci ñom ils ont vendu leur âme au diable dañuy liggéeyal seytaan capitaine bi dafa beaucoup ci euh, ci soldat wu dajjaal yi parce que dajal bu waree ñëw dafa wara fekk terrain bi yëp ñu défar ko ba mu normal manam mbon gi tassaro ñëpp yàqu nit ñi réré seen diiné kapi dafa bokku ci ñi di ligéyal shaytan mom capitaine daf si bokk motax man jamono yi muy wax waxam bi man lima japp man lool nak man la concerné peut-être ma djoum mais capitaine il était en pleine possession démoniaque bi muy wax xool ni ni capitaine changé par rapport ak commencement discours bi commencement discours bi xaar ma arrière vidéo bi ngeen déglu commencement discours bi ni batam mel déglu len ko fi bat bi nu mel. kon nga am na lo xamni jarta kaas jarta mer ñong kay woy fi fii fi mo dakh arena deug la nax si fi mo la nuyu. ok léegi damay avance arrière vidéo tuuti. ngeen deglu fi mi waxe day xex ak yalla ngeen xol fofu nonu ni baat bi mel jangal ñu ba wañu autour bi jëm ci buntu bureau yàlla xamoo sama goor gi si mës ko wax tay la kay waxat xol leen fi rek ni baat bi mel yalla bu la fayé ma xex ak mom na yalla ak ma xam limuy ngand ngande doyu ma ci yow li nga liggéey ci ñun si yow yàlla du la fay man maa lay fay bu ma ko narul yàlla naa yàqu àdduna àllaaxira ak leneen lu ci mën a ñëw la xawla wala quwwata illa billah jour bi moom seytaane dafa jommi iblis moom jour bi moom sûrement il était choqué parce que yow capitaine sa wax bi Firawna sax man mosuma dégg fu mu ko waxee Firawna est-ce que mos na wax ni dafay xeex ak yàlla firawna de lu mu wax mooy ana rabbukumul ala man maay yàlla firawna musta wax ne dafay xeex ak yàlla man lu tool nii moom Sénégal moom maa ngi fi door a dégg wax bu rëyee nii li iblis sax ñemew ko wax laa xawla wala quwwata illa billah capitaine nga ne yow dangay xeex ak yàlla ba tey pareegu ma de ma wax la kan mooy yàlla ba tey pareegu ma capitaine capitaine yalla moy, ki nga xamantene mom mom asaman ak souf sak nit ñi sak jinne yi sak sak animaux yi sak jéer yi sak jaww yi mom yalla capitaine yow lan nga sak sa baay lan la sak ay nit ngeen rek simple nit yu doya di, yo xamne da ngeen di lek di nan di gaddu satala di tekki tubay di teud di febar di def lepp lu di def nga taxaw di tëkku yàlla yàlla bi nga xamantene yàlla bi nga xamantene ne fi ay tànkam bo déggee bo jang ayatul kursi nga ngay dégg fi ñu naan wasiyan kursi yu wal ard yàlla kursi bi mi tek ay tànkam rek mo gëna reuy asaman ak suuf ibnu abbas non la ko firé te ndeysaan mom la yonent bi ñaanaloon ne ko yàlla la yàlla defal nga am dégginu alquran ak firinu alquran moko firé nonu kursi yu nee na fii yàlla suñu borom di teg ay tànkam moo gën a mag asamaan ak suuf yow capitaine nga ne kooku ngay xeexal am na xadis bu ñëw yonent bi duñu nettali ne yàlla suñu boroom dafay téye asamaan ak baaraamam baaraam laa wax de baaraam waaw baaraam yàlla suñu boroom dafay téye asamaan ak baaraamam téye suuf ak baaraamam téye géej géej jéeri ji ak baaraamam téye montagne yi ak baaraamam ne anal malik daal di poser question ne ana yéen ñi ana yéen ñi fi nekkoon ay buur maanaam àdduna fii nii ñi fi nekk instant yi di jaay ne ñoom ay buur lañ di bandi bandilu ñoom ci kanamu yàlla duñ dara parce que ñoom ñëpp la ñoom ñëpp la yàlla di rey ñëpp ñoom ñëpp ay dee bandi bandilu bi fii la yem ci àdduna fii fii la seen bandi bandi lu bi yem yéen sëriñ si nii di yàlla yàlla lu nii di reewantu fii la yem parce que fii àdduna la da ngeen di lekk seen ceebu jën yu niin nappaaje seen ay jeg ba doyal toog ci seen ay fauteuil yu nooy taalibe ñëw mel ni ay xar ak ay esclave di daw di leen indil ay àddiya liggéeyoo leen xëyoo leen gontoo leen affaire yi neex ngeen di toog muy dox kon fii c'est normal bu leen neexee ngeen xotti war ma yàlla waaye ku ci dugg biir bàmmeel di nga xam ne yàlla amul moroom ma wanaat leen ba tey rek ci biir soirée Moustapha Sy bi xam nga sànq maa ngi leen doon expliquer ko Moustapha Sy dafa créer ñaari secte ci biir Moustafchidin Moustarchidin wala Moustarchidat daf si créer ñaari secte yu bokkul ak boobu benn secte bi mu ngi tudd femme dévouée femme dévouée déjà seen logo rek seen logo dama leen di woon logo femme dévouée ngeen xool ngeen xool ndax lii xolal ma lii xoolal ma triangle bi lii mooy seen logo benn triangle def benn ronron ci kaw bët bi lii lii bu dul yëfu se lii lii lii bu dul yëfu seytaan lii lu mu doon képp ku gëstu ci wàllu franc-maçonnerie xam nga symbole triangle lu ñu signifié waa secte bi ci turu islam nag la ñu làkkatu tuddee ko femme dévouée def seen logo mu nekk nii nekk triangle xaaral ma won leen en plus secte bi doomam bu jigéen bu ñuy wax Fatima Sy la jël def ko présidente mu diriger secte boobu mu créé waat encore beneen secte moy Colisée de l'éveil secte bobu capitaine moko diriger dirigé Moustapha si domam bu jigéen yoré ben secte tuddé ko femme dévouée domam bu góor capitaine amad benen secte Colisée de l'éveil batay tey bokkul ak Moustachidine xam nga Moustachidine war Moustachidaat lepp ci turu diine ñu nekk ci biir réew mi créer sen secte créer sen secte di réeral nit ñi di len sank domam bu jigéen bi rek la len di won ngeen déglu discoursam bi mu def ci jour et papam bi et wax ma qu'est-ce que ça a à voir avec l'islam wa li amul son dem youtube jël ko vidéo bi ma enregistré ndekete amul son xamna ni chat la mon mu touti rek ma dem jëli ci vidéo bi man dama jommi ci Sénégal tiit naa ci réew mi ku tiitul man tiit naa waa kay vidéo baa ngi

مصطفى سي مورون فيتا انيفرسير ابار سا دينا لن ون فيديو فين كو فين كاي واي ران كو جوا جوايز انيفرسير سيري مصطفى يو فيتا انيفرسير لور يي في ريون كاي ديف انا كليفا ديني اك فيتا انيفرسير لا حول ولا قوه سيري مصطفى سي انيفرسير ام لا دون فيتا غاتو ييب موم موكو موم نا اندي فيديو بي ابار نين خول ليغ نان ديغلو دومم بو جيجن بي واخ يي مي واخ مومي sang bi ni ma ko waxee woon ne soxna Asiyatu Si suñu sang bi càmmiñam la woon waaye suñu suñu bàjjan soxna Fatima Si suñu sang bi soppeem la suñu sang bi lépp la ñu ñaan ngeen may loxo soxna Fatima Si mu baaxee ñu ay kàddu ci suñu sang bi Seydi Muhammadul Mustafa Si السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته xool leen lii doomu sëriñ boo xam ne du sax muuru gis ngeen ko nii kii mooy soxna Fatima si doomu sëriñ Moustapha si moom mooy présidente secte bi ñuy wax femme dévouée mu def chevam bu baax ndeysaan doomu sëriñ yàlla nañu muuru leen yéen jigéen ñi mun a yonent bi waxal say soxna nañuy muuru nañuy wàcce seeni voile ba mu wàcc nañuy muuru moom doomam bi mu def cheveux bu baax taxaw ni mbolo mi wër ko mu yor micro na da fay tag papa ji deglu len rek ardu man du makta buba fatim jobba lañu jox fagay dem ba kewe nyaay mu am fa sidi mu am fa sidi makhtar ak diana makhtar sidi makhtar ñu jox ko ñara may xarjata taya sa do robe ba mu am fa xar yàlla sidi ak diana sidi ak rosa sidi xar yàlla ñu jox ko ali boy Ali Boy Ndiaye moom mi Cheyfa Sambay Naar Ahmed Bouma Sultaan Biram Chérif Ridwan Ibn Affan mu am fa soxna Rey soxna Roxayatu Ndiaye mi jur Cheikh Al Khalifa Abou Bakrin si sa maam mi la ni woon xasir kenn nga may demal tool si dem gàcce nga laama sa maan kontaan na si yow kookoy bàyyu maam Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum Al-Hubbul maktum wal Barzakhul maktum sa wayjur bi la ni won mustaf sagal nga ma la yalla sagal kon si Malik li jomb la baaba Mali ak Njaay jalla jom yalla na la yalla ko muurloo Ya fexe ba ñu ci bedd bi Ya ubbi suñuy demb. Ginn ñu ci yoonu leer ci yoonu njub Ya ba ñepp di ñu kon gudi ñu. ay at yi doyuñu si Mali yan la yàlla fay. ok xam nga yabaate yabaate weesuwul nga dajale mbooloo si turu diine yow Moustapha Sy dajale mbooloo si turu diine ñii ñëpp wuyu si la nii diine moo tax ñu wuy si la sa doom bu jigéen ñëw taxaw yor fëy naan da lay tagg da bàq di lim say maamaati maamaati maamaati maamaati maam ñi respecté wuñu mbooloo mi. parce que yow ay nit boo leen woowee ñu ay jullit nga woo leen si diine la moindre des choses nga firil leen au moins benn aaya yàlla sax la moindre des choses au moins nga firil leen benn xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam au moins nga wax leen luy tax ñu delloo seen xel ci yàlla bi leen sàkk au moins nga wax leen tawxiid au moins nga wax leen ci seen diine ndax loolu moo leen di jëriñ defoo ko nga taxaw sa doom yi taxaw di la tagg tag yi mu la tag ni lim say mam li lan la meuna a njëriñ bi la top lan la len meuna len dara taxaw ni di tag sa baay dafa yomb ñepp ko meun fi ku ràcc jëmele sa bol day daal di gën a dëll ñëpp mën a seen baay mais yep nit yi ak ñàkk respecté mbolo mi nga taxaw ni di tag sa papa waxo ñu yalla waxo ñu yonent bi waxo ñu alxuraan waxo ñu sahaba yonent bi waxo ñu daa dara ci diine l'islam sabai. di tag sa baay ku ni ak sa bop neen nga na yow doomu serign nga ñu topé la sa turu papa Moustapha si xam nga ki bu ñe doomu serign si lu ñuy xaar ci mom moy mu yor comportement jigéenu julit jigéenu jullit lii moo war a nekk comportement est-ce que. nga boole ñu ak maam Cheikh Ahmed Tidiane lii moo war nekk comportement jigéenu jullit boppu neen. ndax daf ñu mission bi mission si doomu sëriñ. te man Sénégal man dama xamul yéen ban façon diine l'islam ngeen yore. parce que lii moom nekkul diine bi fi yàlla nekkul diine bi fi yonent bi bàyyi lii nekkul diine bi yàlla yónnee woon yonent bi non non non non non pas du tout. li folklore la dem grand théâtre ñu dàq leen ngeen ñëw xaw ma arena xaw ma fan organiser fi seen soirée anniversaire ma indilaat leen vidéo fi ñuy woyalee Serigne Moustapha Sy joyeux anniversaire non boobu dafa mel ni sax gisatuma ko léegi dama leen di indil bii li yëpp ci soirée bi la xool leen xale bu jigéen bii tamit xool leen lii may leen ma parce que son bi dafa faible si téléphone bi baal leen ma nag ci musique waaw lii lan moo ko wutaleeg soirée Fatou Guewel nañ leen waxante dëgg lii lan moo ko wutalee ak soirée Wally Seck wala ak Bercy ba Youssou Ndour xewaloon fan yi lan mooy différence bi amul différence ñooñu sax ñoom ñoo leen tane ñooñu au moins nekkuñu ay naaféq yu làqatu ci ginnaaw diine pour caaxaan ñooñu dañoo ñëw taxaw temb woote ay foo ak ay caaxaan ku leen wuyu ci caaxaan nga leen woo mais yéen ngeen woo nit ñi ci turu diine ba pare tegal leen orchestre di tëgg di way góor ñi jigéen ñi jaxasoo muuruwuñu ñi yor gitaar ñu yor piano ñu yor ay violon jigéen ñi yor micro taxaw di neexal seen baat te ñu ne leen baatu jigéen awra la yéen taalibe bala maa dee ngeen ñëw di ma naan ay non waroo wax parce que jigéen baatam awra la non jigéen fan la baatam di nekkee awra mooy comme soirée yii Moustapha si organisé jigéen ñi taxaw fa yor micro di way fii la ñuy waxee ne jigéen baatam awra la parce que taxaw nii di way di neexal sa baat di fitnaal góor ñi lii moo tax ñu naan baatu jigéen awra la Moustapha Sy nga ne yow kilifa diine nga nga organiser sa soirée xolal ma lii mais musique dafa xaraam yonent bi nee na bépp instrument yuuxu seytaan la musique dafa xaraam sëriñ buy musique ba pare am mbooloo man Sénégal kese kese kese laa ko gis sincèrement Sénégal laa gis sëriñ buy musique ba noppi mbooloo ñëw topp ko ay Sénégal ñii ñu ngi leen di foowe yeewu leen ñii ñu ngi leen di foowe dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg leen di foowe leen di foowe ñii leen di foowe lii ñu leen di woo lii du diine lii du diine lii ay caaxaan la ak ay foo diine l'islam fan la nekkee diiney musique diiney orchestre yéen est-ce que gis ngeen orchestre Serigne Moustapha Sy bi te kenn du wax diine bi moom amul kenn ku ko nekkal ci réew bi ndeysaan amul kenn ku nekkal diine bi ci biir réew mi mais yàlla yàkkamtiwul kenn def leen lu leen neex jàpp leen mbooloo mi takk buum ci seen baat di leen diri jëma leen safara ñoom it ñu topp leen bañ a jàng seen diine rek nag moo tax ñu topp leen parce que ku jàng sa diine doo ñëw mukk di la ngaamu si ñii sénégalais nag moom ndeysaan dafa bëgg toppaate toppaate moom dama gis ne ci deretu sénégalais la nekk sénégalais dafa mun toppee sénégalais dafa mun toppe moom pour moom diine bi il faut nga am koo langaamu pour nga mën a dem sinon rek yow boo langaamul doo dem fenn diine lislaam du diine toppaate du diine boo xamante ne dangay ñëw benn famille def la esclave ngay liggéey di leen jox di jur sa doom di leen tuddee ñoom ñuy tedd lu ñu jur mu doon sëriñ yow loo jur muy continuer di doon taalibe yàlla indiw la fii si àdduna bi pour loolu pour ngay cogg di dunguro ak ay euh, ay ta euh, ay sëriñ non nekk loolu moo tax yàlla indi la fi yàlla daf ñu sàkk pour ñu jaamu ko nañ jaamu yàlla te ba a wékk ci benn famille religieuse ay secte satanique lañu yore ku leen topp sànq àdduna ak alaaxira wallaahi yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yónni si ñun yónnewu fi maamu kenn moom la yónni yàlla yonent bi la yónni yonent bi bi muy dem nee bàyyee naa leen ñaar bu ngeen ci tënkoo du ngeen sonn kitaaballah wa sunnati téere yàlla bi ak sama sunna ñu bàyyi ko fi ñu bàyyi fi téere yàlla bi bàyyi fi sunna yonent bi dem topp sëriñ si moo tax loo si gis dañoo réer a réer a ba xalangu loo leen woo ci diine rek ñu wuy la loo leen woo ñu wuy la sénégalais loo ko woo mu wuyu la parce que moom dañ ko gëm loo ni boo weddee da ngay torox da ngay xalaku ku weddi torox loolu lañ loo sénégalais moo tax sénégalais il a peur de weddi bu gisee loo xamante ne sax lii nii du dëgg lii dafay saaga yàlla wala par exemple sëriñ dafay wax lu wax bu bon saaga yàlla doo ko ñemee wax yow li ngay wax ni du dëgg ay fen la parce que dañ la gëmloo ni kii maamam walliw la boo ko weddee da torox te du dëgg diine lislaam weddi weddi da cee bokk weddi dafa bokk si diine lislaam dangay weddi yàlla dafa wax fa man yaqfur bi taaxut wa yumin billah weddil ba mu set moo tax ñun dañuy weddi ñun lépp la ñuy weddi dañuy weddi màggal dañuy weddi gàmmu dañuy weddi njébbal dañuy weddi joxe addiya lépp la ñuy weddi dañuy weddi wirdu salaatul fatihi parce que bokkul si diine bi dañ koy weddi toog muy dox bi ngeen nekkee nii dañ koy weddi diw mooy yàlla loolu dañ koy weddi lépp la ñuy weddi lépp lu wuteeg alxuraan ak sunna dañ koy weddi lépp lu wuteeg jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koy weddi lépp lu wuteeg li yàlla wax dañ koy weddi à tout prix nag bañu ñu fi dara lépp la ñuy weddi lépp lu wuteeg waxu yàlla rek dañ koy weddi xam ngeen ni moos ay caaxaan képp ci ngeen nekk tabax seeni ay bàmmeel décoré ko ba mu rafet nit ñi di ñëw dafa fa sànni xaalis di bërëngu ci bàmmeel bi di raay di ziyaar ngeen jël alal boobu di ko dundee di si takk ay soxna yu rafet di si jënd ay kër di si dawal ay oto dem sax ba kër yi di leen sonal ngeen di génn di naan sama kër yi ma tabax moom laay rëcc bu démb doon tey duma ko tabax Sénégal moo neex métier toog muy dox mooy métier bi gën a dox biir Sénégal métier boo xamante ne la moom tubaar tubaarkàlla macha allah. yàlla nañu yàlla jubal yàlla nañu yàlla gindi yàlla nañu yàlla won dëgg ba mu leer ñu ne lii mooy dëgg mu kàttanal ñu ñu topp ko yàlla woon ñu safaan ak mbon ba mu leer ñu ne lii mooy safaan ak mbon yàlla kàttanal ñu ñu topp ko maa ngi yemali fii live bi guddi na ba beneen yoon incha allahu rabbi sûrement semaine prochaine dinaa génnaat parce que live tey bi sax capitaine taxu ko woon jóg leneen laa programme woon mais vu que entre temps am na lu capitaine def lu rëy loo xamante ne man daf ma sax moi tax ma génnoon def si mon live mais inshallah sûrement samedi prochain wala wala wala wala dimanche prochain inshallah rabbi dina ñëw dina ñëw ci ci benen sujet inshallah allah di leen ñaan ngeen partager vidéo bi bu ko defee ñëpp mun sé jot inshallah rabbi Assalamu alaykum wa rahmatullah